<laughs> merci euh, dig ma mu lay dégg. ayca <laughs> euh, alaaji baal ma de. comme sax mu ko defee mu. Mm-hmm. nu baral ñu baral yoon nu baral jéego yi. Mm-hmm. merci beaucoup alaaji comme ni nga ko waxee di gërëm bu baax baax a baax waa Diass di leen wax ne na autorité yi dem xool bu baax a baax a baax jàppale ñu fa nekk askan wa fa nekk di dund. di wax alaaji comme ni nga ko waxee donc suñu invité bi Abdourahmane Bala di entrepreneur agricole wax nga ko ci. ndertel gi donc nekk secretaire euh, général du GIE donc ASSD ànd suxali sunu diwaan donc fële ca commune Pout mhm. ñu def thème bu am solo thème bi mooy lan donc comment l'agriculture a peut-être une solution économique durable et quelles pistes devraient être explorées pour y parvenir donc première question mhm. waaw loolu moom mooy moom la ñuy njëkk élucider door a laal comme quelle piste waaw voilà loolu moo nekk thème bi donc tey ñoom ñu moom mii dafa nekk ci producteurs yi donc di di yëngu ci mbay mhm. donc am ci comme ni ko ay moromam yu nekk ci GIE yi am ay tool ah, mais am nañ ay jafe-jafe bala ñoo wax solution actuellement yi nga xam ne tey nguur gu bees gi indi nañ ko ci li nga xam ne moom mooy wàllum mbay moomu ñuy mbay di nga xam ne ay légumes lay doon ay fruits lay doon ah, mbay yu bëri yoo xam ne surtout maraîchage bi ñoom ñu ngi koy def donc lan moo nekkoon d'abord yéen seeni tolof tolof bala ñoo yegg si fii nga xam ne tey jot ngeen ko dund ci jamono yee passé ci li nga xam ne moom mooy agriculture bi. waaw jërëjëf. Euh, suñ dem mhm. bon sànq dama fàtti nuyu ku vraiment ku important mooy suñu président GIE di Ndiaga la di def liggéey bu am solo suñu gox bi. macha allah ak bien sûr su e bi. grand bien di di euh, di nuyu waale ñëpp ñu fa nekk. bon di rafetlu question bi question bu am solo. Mhm. bon yaakaar naa tey jii même ku newul ci mbéy xam na suñu problème principal mooy commercialisation. Sénégal ku nekk ci mbéy ak ku ci nekkul yëpp xam nga ne problème commercialisation lañ am. ak conservation ak conservation mais. jamono jii may wax ak yow Pape. jaay problème jaay lañ am. da ngay xool soble bi ñëpp ngi jooy. on a produit des tonnes bu ma nee des tonnes nag c' est plus de cent mille tonnes ñu jàppee ko noonu. cent mille tonnes. plus de je bien plus de cent mille tonnes. mais ba tey ñu ngi importé soble ba tey. importation bi dakk na mais ba tey nag soble euh, nu mu tuddati soble Hollande bi mi ngi fi. Mhm. man dama ko fi romb dama koy gis ci marché bi mi ngi fi. te loolu tam c'est un problème. Mhm. parce que dès que local bi commencé avant même locale bi di commencé waroon nañ mën a euh, maanaam def benn transition bu gaaw. Mhm. local bi day euh, importation bi importé bi day jeex. locale bi local bi dugg mhm. mais loolu amul. Euh, boo xoolee tey jii ñu ngi jaayee en gros je dis bien en gros saaku soble am na ñu koy jaayee sax ba mille francs chez le producteur. li ñuy woowee ñun bor champ ñëw sa tool jëndee saaku soble bu vingt cinq kilo ak quatre mille francs loolu moom képp ku ko def xanaa da ngaa ami bor rek mais munoo cee génn. saaku soble producteur bu ko jaayee quatre mille francs quatre mille cinq cent cinq mille francs munoo cee génn. saaku vingt cinq kilos bi saaku vingt cinq kilos léegi nag Pape loolu li koy waral mooy da wax sànq lu am solo mooy problème conservation pourquoi les gens bradent leur produit mooy que amuñ fu ñu conserver. Mm-hmm. tey ji boo ko téyee day yàqu nëpp. yàqu nëpp beneen problème moo la ciy fekk da ngaa dem banque lebi xaalis. Ah. wala Pape Sidi moo la lebal xaalis. wala euh, Grand Dame moo la dimbali nangam sàngam yeneen problème ñëw te nag li doy waar mooy que ne ëpp na ah man de wax sa dëgg yàlla yàgguma ci mbéy sànq nag damay def benn rectification bu ndaw Pape li nga wax man autodidacte laa ci mbéy à la informatique laa jàng. Hmm? Hmm, électromécanique teg ci informatique. Mm-hmm. macha allah yàlla dafa def ma bëgg mbéy. loolu yàlla moo ko def. Mm-hmm. ma nag ciy def sama doole di ci def sama alal di ci def sama xam-xam te nag amul daara lu ma ciy rëccu gisaguma ci nag sama bopp. Mm-hmm. waaye am naa yàqin ne am na fu Sénégal di toll. Euh, comme ni ko yeneen comme tey jii yaakaar naa ne ñun xaw nañ génn Sénégal as tuut boo demee mm. à l'extérieur mm. mais les plus grands patrons c'est les agriculteurs mm, donc pourquoi pas ñun dëkk bii mu war a demee noonu parce qu'on a des cultivateurs on n'a pas encore d'agriculteurs parfaitement appellation bi tam lu am solo la Pape dafa am lu am solo de euh, maa ngi ciy waxtaan ak euh, Dame ne ko li ñu war a njëkk dindi Sénégal mooy bët bi ñuy xoolee l'agriculture mooy képp ku nekk agriculteur wala cultivateur tu es un pauvre. Mm-hmm. Mm. loolu il faut ñu dindi ko ci bopp yi. Mm-hmm. parce que dañu jël métier bi daf ko métier pauvre. Mm-hmm. alors que no agriculteur ci yoon déjà li ngay générer ci emploi rek kenn xamul nu mu toll. damay jël exemple man mi nga xam ne li ma koy faral di tooñee sama bopp agriculteur bu ndaw a ndaw a ndaw la lu mu bon bon bon bon bon j'emploie au moins entre dix et vingt femmes au sama tool. au niveau de la commune de Pout mhm. këyit bi te man un hectare tout as tuut laa am ñi am dix hectares kenn waxu leen ils emploient plus de cinquante cent jeunes mhm. dans la zone des saisonniers des journaliers des permanents donc loolu koy xanaa ku ko defar ba mu baax mais nag war na mën a war na mën a guux maanaam mhm. chômage bi nekk Sénégal ci li ma foog mm. dafa am benn mm. benn image bu ma dégg oustaz alin Sall doon ko waxtaanee si rajo bi moom ak Mbacke Sylla mu ne Sénégal fii ñun dañoo am benn jamono télé bu tudd RTS rek moo fi nekkoon. Mhm. bu mardi jotaan dañuy teg xàll leen yoonu daara jee. Mhm. ñu ngi ñaan yàlla may nu ko. théâtre ba tàmbali théâtre bi dañ ciy wane. benn waay bu yor kalandoo mhm. chauffeuram di ko sàcc di ko otoom personnel chauffeuram di ko sàcc di ko kalandoo mhm. ci même théâtre yooyu dañ la doon wan jenn waay joo xam ne mhm. day sol caaya ju gàtt yeew yu weex mu <laughs> takk téere ci digg bi <laughs> sol faaru mbaam takk fii téere bokk ëmb yor socc bu gudd xanaan dëkk balaa jógee saway baykat la dof la xamul dara léegi am na sax gazon bu nekk si kër bi moom mooy jël ileer ne da koy jéem a bayal ba mhm. euh, maintenant on a réussi à faire comprendre aux Sénégalais dans leur globalité à travers le la puissance des médias le baykat c'est un cultivateur amul dara ku ñàkk la mhm. Mhm. torox la image boobu lañ ko jaayee parfaitement contre léegi boo jëlee stigmatisation boobu image boobu ñu renvoyé nit ñi dañu dem ba ñu dëkk ci àll bi ñoom bëgguñu mel noonu dañu bëgg mel comme tonton Baki mm-hmm. bi nekk si kër gi am deux cent mille am jabaram buy génn mu seerewaatal ko cravaatam bu wàccee mu defaral ko lekk si plate assiette am mm-hmm. on a réussi à endoctriner les gens par le biais du septième art le théâtre le cinéma malheureusement mm-hmm. loolu moom moo tax nit ñi boo nee bay rek dañ naan ah pour ñoom mbay yëfu ko torox la mbay mooy dundal réew moo gis muy développé baye ko yor joyantiwaat ko il va falloir que ñu jaaraat ci suñu artistes yu xereñ yi mm-hmm. Mm-hmm. ne leen je préfère l'agriculture mm-hmm. am na ci ku ma fekk may raxas oto mu ne i di mu ma ne ko grand kaay taxaw saay <laughs> fii laa taxaw may filma may <laughs> <laughs> ba pare ñu fay ma 1000 francs wala 2000 donc ce qui veut dire que mbay réew mu développé moo la yor te yonent bi sallallahu alayhi wa waaw alaaji alaaji alaaji taal ngol ngol maa ngi lay siyaar bu baax dafa mës a wax ne ngeen gi mbindeef bu ngeen bëggee wér bu ngeen bëggee am wér gu yaram mhm. dunde leen lii saxe fi ngeen dëkk boo demee l'hôpital yi façon feebar bu nekk nga fay mhm. fekk parce que a importé ce que nous mangeons donc ce qui veut que nous allons importer aussi les maux ci conservation mhm. yi ci produit moo tax mbay moom wax dëgg yàlla bu weesoo activité génératrice de revenu bi mu doon. dafa bari lu muy soubassement la ci. Mhm. société bu bëgg jëm kanam. jëm kanam moo tax euh, yow sa mbokkum baykat mu baax nga mais man nag mbaykatu kii laa baykat <laughs> local yi ndaw yi bokkuma ak nga xam ne vingt cinq ectare lay bay. <laughs> macha allah alaaji loolu rafet na ak nim nim tijjee li nga xam ne moom mooy euh, ñoom njaay mi daf ci nekk problème donc boo xoolee tey. Omar Badiane internaute yi maa ngi leen di ziar. waaw boo boo xoolee tey dëkk bu mel ni Nigeria di Nigeria mhm. donc moom. Euh, Euh, nekk na benn maanaam ci ñu jiitu ci dëkku Afrique yi nga xam ne tey ñoom li ñuy bay moom la ñuy dundee maanaam am nañ li ñu tuddee souveraineté alimentaire mhm. donc bokk na ci te lan moo ko waral mooy dañoo xam yan yoon la ñu war a jaar mooy piste yi pour que lii nii ñu bëgg moom suñ bopp ci wàllum lekk mhm. ci wàllum col ñu mën a xam ne mën nañ ko mën nañ ko dund mm-hmm. ñu utiliser ko mooy ay moyens ay piste ay yoon la ñu gis ne yéen aussi comme ni nga waxee vente bi noonu euh, gis nañ ci aussi li nga xam ne mooy moyen bi les moyens logistiques tey di nga gis nit moom tool xaj na mbirum courant xaj na mbirum ndox ndax am ngeen problème yooyu aussi parce que parfois aussi yooyu day poser problème ñenn ñi dem ci tool yi di bay ndax yenn saa yi ñu am problème yooyu noonu ndox courant mbala yenn affaire ndax mm-hmm. yéen pour foofu noonu am na problème yu mel noonu yoo xam ne tamit faaw ñu wax jàngoro yi pour ñu doog indi saafara si. waaw jërëjëf euh, sëñ Dame. Euh, li nga wax ni effectivement problème la. ci ci zone yëpp nag. Mhm. mais dama bëggoon euh, peut-être que diñ ci ñëw ma bañ ci sori. mooy mhm. problème mu suuf si. déjà mhm. bala ñu wax ndox mi. mooy l'accès à la terre. am ngeen waaw da nga am les Sénégalais ont un problème. avec l'accès à la terre ni ñu ko wanee jas léegi. Sénégal ngay gis ñoo xam ne dañ leen fekk ñu yeewoo ci gox. pendant des siècles bu ma nee siècle mooy cent ans donc pendant des siècles parce que maamam fa la ne woon maamaatam fa la ne woon ñu xëy rek benn entrepreneur bu kenn xamul jógee fa la jël suuf sa yëpp ñu nekk ci di daw loolu premier problème bi la avant ñoo ñëw ci ndox mi mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. boo weesoo loolu ndox mi ndox mi tey jii ñëpp xam nañ ne mooy li ma agriculture tollatul ci ci ci euh, ci taqale il faut am xaalis loolu lay dafa dafa war a leer agriculture foog nga am xaalis 10 millions bayul de ci réew mi. comme ni mu ko waxee. surtout booy def mbayum dër. mi ngi noonu. Mm-hmm. ndox ma rek ak bu la koy indi dana ak ak surga yi ngay jël. léeg-léeg dóor lu dóor bi moom dañ exemple boo bëggee gas teen waxuma forage de teen. teen kese boo xam ne à peu suñu zone bi fi ñu nekkee du puut yëpp nag mais ñun suñu zone bi à peu près euh, vingt vingt cinq mètres. Ah, sori ngeen. non sori wuñ Pape ñun dañu am chance lay wax. Hmm. attention dañu am chance. naa la wax lu tax euh, loolu am na ñoo xam ne il faut ñu dem plus de cent mètres pour am ndox. Allahu akbar nappe bay hmm. sori. mi ngi noonu léegi ñun loolu rek il te faut à peu te li may wax nag euh, du ay chiffrantu. Hmm. parce que dama ko dund. pour am à peu loolu. Hmm. boo globaliser lépp il te faut à peu un million cinq cent. pour am ndox pour nga am bon bu ma nee te mooy teen bi nga boole ci gas bi raax bi ciment bi nangam sàngam boole ci foreur yi. forage artisanal. ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg forel la manuellement bokkul ak mécanique machine bi koy def. Hmm. dugal bu ñu matériel bi yëpp boo ko globaliser ak seen main d'œuvre à près mooy yegg un million cinq cent. ok loolu ba tey tane na. Hmm, tane tane na waaw mais y a un problème da alors ci ndox mi mhm. loolu pomp boobu dafa am lu koy dundal. c'est soit l'électricité. Mhm. soit le solaire. le solaire hmm. te très souvent on utilise le solaire. parce que du am installation. solaire bi tam beneen problème la. parce que c'est 3 millions minimum. installation 3 millions minimum exactement. minimum 3 millions solaire bi. non boo bëggee lu baax. Mhm. comme ni mu koy waxee boo bëggee lu baax. y moyen mais boo bëggee lu baax. il faut nga dem ci li Pape wax. 3 millions waaw. léegi dese na la clôture. non 4 millions 500 yooyu ñëwagul de li ngay wax nii. 4 millions 500 agum te demul fenn 4 millions 500 ci question. Euh, mooy problème yi nekk ci biir loo xam ne tey ay jafe-jafe la. Mhm. donc loolu benn fànn la nga ñëw ci électricité bi. Mhm. électricité bi nous avons un très grand problème. pourquoi parce que ay compteurs commerciaux la ñu jox. Mhm. mënoo ne yow. da ngay jàppare non de monophasé am na ñoo am triphasé mais je de des monophasé. triphasé gën a bëri jox leen de compteurs commerciaux compteurs commerciaux pour ñu comprendre ñu amul woyofal man sama kër bu ma dugalee un cinq mille francs j'ai à peu près quarante sept quarante huit kilowatts mais tool boo dugalee loolu tu as vingt cinq tu as la moitié. Mmh. loolu te courant boobu mënoo ci liggéey ñaar ñetti fan. nga war a fay caution pour visa de conformité. sans non foofu sax man ah gisaguma kuy fay caution parce que caution pour installation kër la ci li ma xam. Mm-hmm. Ah, am na pour entreprise man mii xam naa dara am naa. voilà non am na pour entreprise. Mm-hmm. <laughs> mais je veux dire ñun. cent vingt mille laay fay courant bi ñu jox contrôle ba rek. voilà courant bi ñu jox courant woyofal la mais commercial. Mm-hmm. beneen bi mooy qualité courant bi. dafa des. courant bi day coupé saa su courant bi man guddi bu ma taalee parce que guddi gi amoo solaire courant ngay taal boo taalee tu as moins de deux cent vingt volts c'est un problème pourquoi parce que doole bi pompe bi war a am pour alimenter yow tool bi du ko am. Mm-hmm. loolu beneen problème la. Mm-hmm. donc côté énergie côté problème yooyu lañu am. Mm-hmm. boo ñëwee comme ni nga ko doon waxee eh, yaakaar naa ne dugg nga ci moom mooy euh, problème logistique. problème logistique. Euh, tey jii loolu nag. comme li may wax état moom doo ko xaar ci lépp. am na loo xam ne aussi agriculteurs yi ñoo ci war a góorgóorlu. état fi mu la mën a dimbale mooy problème de piste yu baax. ay yoon ay yoon yu baax. tey jii ñun pour génne suñu produit. moo a quand même des difficultés surtout nawet bi. parce que yoon yi baaxul. du ma ne nag commune bee ko war a defar walla nangam sàngam mais commune bi am na fu mu la war a mën a accompagner. même bu fekkee ne day génnee benn pourcentage yow nga indi la ci des. ñu xam ne noonu la demee. Mhm. les transports ne sont pas adaptés. tey jii boo xoolee pour génn suñu produit ay Ndiaga Ndiaye la ñuy jël. nga jël sa soble yëpp ci Ndiaga ñu tegal la ko ci kaw porte bagage et c'est excessivement cher. Mhm. donc loolu ay jafe-jafe yoo xam ne ni tey jii ñu ngi koy jànkonteel par rapport ak. Euh, logistique bi. logistique bi donc ak li nga xam ne moom mooy ndox mi li nga xam ne moom mooy. courant bi li nga xam ne mooy accès à la terre. donc mu nekk jafe yoo xam ne alaaji ñii ne dañuy war a jël solution maanaam mbay mu nekk solution. Mhm. mën a créer li nga xam ne moom mooy emploi. donc am na lu fi nekk mooy tey ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon di yëngu ñu ngi koy mhm. jàmbat mhm. mooy accès à la terre donc ñu jox ci ñu ut ci solution nga xam ne tey fépp fu waay mën a dem mën a am suuf mën a bay beneen bi aussi wàllum wàllum électricité bi ñu jéem a jàppale nit ñi ba électricité bi nga xam ne moom la ñuy jëriñoo ñu fexe ba mu yomb ci ñoom que même que li nga xam ne mooy machine pompage yi nga xam ne tey mooy mën a def seen ñu am ay ndox na ay programme yu banque mondiale financé ba pare mu mën a doon il faut avoir le bras ba boo mm-hmm. taxawee di wokk say tànk mm-hmm. c'est doo sëgg waaw loolu état mooy dox mooy dox yoon boobu donc pour nga renforcer li nga xam ne mooy euh, souveraineté alimentaire boobu noonu alaaji Euh, li ci gën li ma ci jàpp comme solution pour nga am benn euh, agricole bu durable donc li ci am solo mooy infrastructure yi mu wax donc il faut que ñu taxawal ci dëkk yu mel noonu ay ay ay ay ay bâtiment de stockage yoo xam ne tey. ay sàq. sàq mais sàq yu moderne. maanaam ay grenier. grenier yu moderne nga xam ne tey dinañ mën a conserver kii produit produit am. jafewut beneen bi ci des. am na njabootug maam sëñ mm-hmm. Muniru Njëgeen fii ci Thiès. Mm-hmm. Thiès invité naa ko good morning gi. Mm-hmm. mu ne bu ma état bi joxee feu vert. ma defar ay grenier yu toll comme grenier yu France. ci ban. loo fa dugal mu denc ko. ban ban ban ban. avec de la terre cuite. <laughs> dégg nañ ko dañ ko faale juste. volonté politique la rek. volonté politique la donc volonté politique boobu mooy ñu am ay ay ay zone de stockage. que kii bu produire balaa ñëw dakaar mën a denc produit fenn lu mu duré duré moom mën na ko indiwaat Dakar euh, wax Dap foofu nga baal ma benn point hmm. xam nga euh, maanaam am na benn buñ ci defar au niveau de Diamniadio hmm. Hmm. mais euh, maanaam aussi booy liggéey ci mbir da ngay dem nga waxtaan ak acteurs yi ña fa nekk ñu wax la seen i bëgg-bëgg ça pas forcément dire que seen bëgg-bëgg ngay def mais li ngay def na xaw méngoo ak seen bëgg-bëgg. Mhm. bu mënul nekk totalement seen bëgg-bëgg. ah ils vont s'adapter. mais tey jii yow boo jëlee euh, lu ci mel ni jam ñaajo. jam ñaajo bon déjà lu may déplorer la jam ñaajo tey jii ay bâtiment waruñ fa woon ne parce que jam ñaajo c'est une zone très propice à l'agriculture. kuy béy boo xoolee suufu jam ñaajo rek xam ne lii suufu mbéy la. bu ñu kukk la booboo baax ci mbéy. tey nag ay bâtiment ñoo fa ne mënuñ ci dara. te te suuf si day nokki de. day nokki mu laa léegi noonu ñun mhm. suuf suuf si day xar. ñun suuf soosu la ñu am au niveau de Pout yenn zone yi bokk euh, nga jël batiment de stockage nga def ko foofu. Mm-hmm. mais defal benn benn calcul bu ndaw ñi nekk secteur boobu mais béyuñu parce que tey jii béykat yi boo ñëlee boo jëlee zone des ñaay fan la ay Diender la ay Pout ay Sébikotane Sangalkam. Mm-hmm. mais xoolee nu ñu xëcceeg. Euh, jam ñaajo boo fa mm. bëggee yóbbu sa produit mm. xoola difficulté yi ngay rencontrer parce que mm. autoroute à péage wala moo fa ne boo fa bëggee dem à ah, défaut nga jël national bi te nationale bi moom temps bi ngay perte mi ngi noonu mm-hmm. donc tey jii am na loo xam ne boo koy def da nga koy def ci biir acteurs yi comme li nga zone de pour tey jii ñun point boobu euh, peut-être daam dina ci ñëw mais dangay xool Sénégal yëpp dañuy béy fan la ñuy jëm marché yi Mm-hmm. bu ma ne Sénégal yëpp nag attention euh, euh, du lu tuuti de nit ñi dañuy jëlee produit ba Fuuta ba Waalo mm-hmm. di ko indi marché Thiaroye mm-hmm. ñooy ñooy marché lujum bi mi ngi noonu mais loolu problème la pap mu nekk accès au marché c'est ça parce que zone de Niayes mi ngi fi léegi yow la vallée mais utal un marché pour la vallée zone de la vallée di ci mel ni ay Waalo ay Ross Béthio ay euh, nu mu tuddati Fuuta ak nangam sàngam wute leen marché boo xam du ñu egg si Dakar. Mhm. mais am na am na jëm ñaajo marché d'intérêt jëm ñaajo. boobu laa lay wax. Mhm. marché d'intérêt commun boobu. marché d'intérêt commun boobu. c'est pas adapté encore pour les agriculteurs. parce que déjà y a la charité qui est pas de proximité c'est pas un marché de proximité. Mhm. mooy li may wax tey jii nii euh, boo xëyee bëgg a ndékki tu as options pour jënd mburu bokk boutique dafa war a nekk sa koñ mbaa nga am boulangerie mais da ngay yem ci fonde hmm. exemple hmm, c'est juste un exemple ça veut pas dire que wuy fondé euh, baaxul euh, waaw baaxul hmm, mais c'est juste un exemple pour diir que marché bi fi ñu ko def dafa waroon gën a jege agriculteurs yi mu nekk zone boo xam ne vraiment yow euh, tu te tapes di di je sais pas quinze minutes vingt minutes nga yegg ci si marché bi mais yow foo xam ne dangay ngay daw une heure de temps pour yegg si fa ba pare boo ñëwee location la ça c'est normal waxuma ne waruñ ko waruñ ko ça ça doit pas être gratuit mm-hmm. mais quand même ñu woyofal ko ba pare nag mu am une communication derrière mm-hmm. mais marché boobu mm-hmm. pour wax dëgg bon récemment gis naa seen benn euh, télé télé télé sœur. Mm. def ci euh, def ci def ci benn reportage c'est mm-hmm. ci période korité bi. même tabaski bi dañuy ibbi yëpp xar mais da ngay gis ne dafay dafa yaraax lépp lañ fay jaay dafa yaraax. maanaam dafa am espace parce que mm-hmm. amul amul dara nekku fa. dara nekku fa parce que liggéeyuñ set euh, avec euh, la force de proposition. qui est les agriculteurs ak ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy bañ. parfaitement parce que bu fekkee ne dama koy wax chaque jour boo nekkee ci mbir secteur yëpp a ci yem na bu fekkee da ca fekk ay nit ñu cay dund. boo ci bëggee yeewu am ci xarañte mbala réussir da ngay liggéey ak ñoom mhm. parce que ñoom ñooy la force de proposition de li ngay proposer donc loolu noonu moom lay jooytu te ñu ci bëri tamit lu mel noonu la ñuy jooytu naam am na ay baykat naam ñu ngi gis producteurs yi naam am na ñu ñuy wane ci tele yi naam ñu ngi gis ñu naan ñii mbay la mhm. mais dafa am ñoo xam ne damay wax ne mooy producteurs yu ndaw yi mhm. il faut que ñu jàppale leen nan lañ leen mën a jàppale mën a jël seen bagage yóbbu nan lañ mën a jàppale wan leen ay yoon par rapport ak banque yi parce que démb ñu ngi ciy waxtaan sax nga wax banque bi tey benn banque moo fi nekk mm. la banque agricole mm. am na nu muy financé mooy par saison lay financé donc day campagne lay lay financé mm. beneen bi ci des aussi li ñuy wax la technologie agricole mooy war nañ jàpp ne xale yi tey fi ñu jëm mooy alaaji ñu jël ces jeunes là former leen ci filière yi nga xam ne tey dañuy yëngu ci wàllu mbay pour nga xam ne emploi bi day yomb ba tey kii bu soxlaa toolam dina mën a jël ay jeunes yoo xam ne un an comme ni ko Allemagne defee parce que tey ñoom du ay BTS yi ngay gis ni ay brevet technicien supérieur ou bien ay euh, ay licence nangam no un an ngay jàng nga def sa euh, ci ci formation métier boobu noonu pour nga am liggéey fii nga xam ne jëm ko donc ces jeunes là mën nañ leen former ci un an pas mois yi ñuy wax ay mhm. certification mais un an deux ans nga xam ne tey centre de formation métier yooyu noonu dinañ mëna a orienter jeunes yu bëri ci wàllu mbay su ko defee jeunes yi dinañ jubluwaat ca tool ya nga xam ne nit ñi dañ koo wax kaw ba mais mhm. dootul nekk kaw mais day nekk une zone de production mais en même temps ñu créer de maanaam ay ay nit aussi ay sénégalais ay investisseurs mbala ay nan laa ko mën a waxee ay opérateurs économiques dugal ci seen seen loxo nan lañ ciy dugalee seen loxo mooy kii tey moom mooy bay mais war na mën a am benn ay opérateurs économiques yoo xam ne war nañ mën a jàppale Sénégal que bu monsieur Ba euh, euh, bayee ba pare ñoom ñu dawal seeni frigo loolu donc ci lay euh, maanaam logistique bi ma doon wax informatiser li nga xam ne moom mooy la technologie bi nga xam ne moom la ñuy def mooy oto yi dem di jëli. produit bi ñu def mu nekk oto yu moderne nga xam ne sa produit di nga ko jëlee Pout jëlee ko maatam jëlee ko Fouta jëlee ko Ziguinchor mu mën a def ñetti fan juróomi fan une semaine ci ci ci ci ci ci frigo bi te ci ci oto bi te du yàq mais loolu lan moo koy def mooy opérateur économique bi nga xam ne jël na alalam dugal ko ci moyen logistique yooyu nga xam ne day ñëw sa tool yow da ngay bay rek mu ñëw dugg jënd dem yóbbu ci zone bi nga wax muy zone ñaay yaa xam zone de Diamniadio ñu def produit ñu ne ah kon sénégalais ci kanam tuuti dinañ mën a moom seen bopp. ci li nga xam ne moom mooy produit alimentaire bi ñuy dundee. beneen bi aussi moom laay tëjee jox sama invité bi. moo ñu verrouiller pas totalement le marché c'est-à-dire importation. Mm. importation bi ñuy def ñu am nuñ ko verrouiller ba nga xam ne ñun suñ produit dinañ ko mën a dawal mais ñu tubbi yeneen bunt yoo xam ne sous région bi aussi parce que bu fekkee ne dañoo am euh, diversification des produits culture bi. Mm. dinañu permettre ñu am mbay mu baax boo xam ne tey yow. mbala euh, euh, Mauritanie euh, Guinée Bissau Guinée Conakry Mali dinañ mën a ñëw Sénégal parce que yàlla bon production ki est là mhm. mais lan moo koy def mooy semence bu doy comme ni nga ko waxee noonu foog naa yooyu tamit ay problème la mhm, parfaitement mhm. donc pour terminer Abdourahmane parce que waxtu yi def waaw léegi da nga ñëw ci point yu bëri ñu gaaw résumé ko comme waxtu bi ñuy dab premier point bi nga ñëw mooy pro aujourd'hui problème de euh, mécanisation man laa koy woowee. Mhm, macha allah. Mhm. tollatuñ mbéy moo xam ne ŋoos ŋoos la ileer ou mhm. araara. non tollatuñ foofu ak ay fasaki nag di béy tollatuñ foofu. il faut que ñu jàngal ni ñi ñu dem vers la mécanisation mais jàngal bi dafa war ànd ak formation comme ni ko Pape waxee. te vraiment du lu compliqué. tey jii am na ñu xarañ Sénégal ñoo xam ne loo leen jox mën nañ ko reproduire. parce que soxlaatu ñu fi nekk créer des. ñu ngi waaj tàggoo ñu ngi waaj a tàggoo mbéy mi. Hmm. beneen mbir mi mooy rapidement. ñu ñu 30 secondes euh, comme ni mu ko comme ni mu ko waxee wàllum marché bi. Hmm. marché bi il faut ñu xoolaat ko parce que béykat béykat rek nga war a doon. y a les coopératives qui sont là. may nuyu waale coopérative bi nekk suñu zone bi. Hmm. donc béykat dafa war di béy jox coopérative coopérative commercialisée. loolu aussi dinañu dimbali. donc financement bi mu doon wax tey jii aussi boo xoolee financement béykat wala entrepreneur. mënul yem ak financement un particulier un mmh. salarié par exemple. mënoo dem banque ñu lay laaj dix huit pour cent dix sept pour cent ou plus. Mmh. pour un délai court de dix mois. mënoo mmh. ci génn. donc nañu xoolaat mbay mi mbay mi mën na suqali dëkk bi. mën na mën na génne jeunes yëpp ci maanaam chomage bi ñu nekk te mën na leen yokk xam-xam parce que formation bee ngi fi mën na indi liggéey mooy mécanisation bi ngay wax. li mu mën moo bëri. nañu fulaal mbéy mi bés bu ñu ko defee dinañ ci gis njëriñ lool. Mhm. waaw jaa jëf. dama la bëgg a wax ne la am na solo boo demee boo demee boo demee boo demee Congo. Mhm. wala nga dem Côte d'Ivoire wala nga dem Burkina. jeex naa damay damay tàggoo loolu rek ni ñuy développer seen agriculture mooy ay formation ak ay réflexion yu waa Sénégal def ci séminaire yi fay ci xaalisu contrôle. wallaay wallaay wallaay bind lépp. tënk ko borom xam-xam yu xereñ ne lii mooy développer agriculture Sénégal ak développement ñu jël ko teg ko ci tiroir yi boo leen waxee ne leen léegi nan développer agriculture bi jëm ci liggéey bi dañ naan waa nan dem séminaire mhm. bu ndikkee rangé waat ci tiroir yi léegi li ñu doon liggéey ñun moom la yeneen réew di jël di ci développer xam nga mhm. lan moo des jug dox jëm ca loola wàcc wax ji te jëpp lu ci jëf mhm. loolu rek a mën a développer réew